réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. asalaamaaleykum ami chers internautes yéen ñi safoo di seetaan les Patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi diggante Gabriel kan ak ki nga xamante ni moom moo di aju Sarr ñoom naa daal lu ñuy gën di dem seen diggante di gën a ñagas di gën a dem seen secret yu bëri di jéem génn li nga xamante ni moom moo di nit ñëpp di ko xam kenn moo di Gabriel kan nee na kat Mamour moo doon yóbbu Adji Sarr. Saly fële sa kër goo xam ne dafa sax am li nga ne moo di ay épicine te Mamadou Diallo ku ko dégg rek da xel day dem ci complot bi nga xamante ne amoon na ci Ousmane Sonko ak aji Sarr ba tax loolee ki nga ne moom moo di waa APR ñoom daal dem dañoo demoon ci buntu palais bi di xamal ne Macky Sall ñoom daal kontaan nañ mais li ñu fa jëlee daal dara dara neexu leen parce que police da leen daal di dóor ak li nga xamante ay gendarme ay euh, grenade lacrymogène ba ñu tooyee xepp ba tax nag loolu tax na ñi nga xamante ni moo ko nekkoon di kaas di naqarlu nu ñu mel di naan ñoom waruñu leen dóor ay grenade lacrymogène te ñaata at la peuple sénégalais bi gendarme di leen dóor ay grenade lacrymogène ngir lan ngir taxaw di manifester wu pacifiquement ñu ne loolu doo ko fi amee mu doon loo xamante ne yaakaar naa ne gis ngeen li nga xamante ni moo di lacrymogène yi nu mu safee